famille bi bii wax ne ba tey négligence. maanaam euh, nu comme ni ñu ko waxee léegi effectivement ñun tamit ñu bokk ci ci na naqalu diis bi dal famille bi donc présenté nañu suñu condoléance famille bi mais nag effectivement am na lu famille bi wax xëy na dafa ñàkk effectivement gis-gis rek dafa ñàkk information bu ñu sañoon effectivement ñu daje ak famille bi toog ak ñoom diisu ak ñoom waxtaan ak ñoom calmement xam naa ne bu ñu ko wax ñu waxtaanee ak ñoom dañuy dégguñu bu baax dañuy xam ne effectivement. xale bi ñëw fii keroog toppatoo nañ ko li ñu ko war a toppatoo waaye nag ah comme on dit mbirum yàlla mënuñ ci dara mais nag dañuy xam ne au moins xale bi toppatoo nañ ko ba suñu ak ah, akulaay euh, euh, maanaam. Euh, taala ah. bon xam nga gars ñi tey dama leen wax ni dafa am ñaar ba ñett dafa am ñaar ba ñett yu xew dafa am ñaar ba ñett yu xew dafa am ñaar ba ñett yu xew ci hôpitalu Pikine ma ñëw tey pour soutenir camarades yi pour taxaw seen wet pour wax leen ne leen problème bu toll nii c'est lan moo xew dama leen ne journaliste bi njëkk bind moo indi coow li yëpp ñuy wut buzz ci hôpital wala maa doon maa joxe information bi bala nga ko doon gën a nawlu. quand tu dek boo boo déclaré deux cent mille fukki junni cinq mille francs ci différence beneen bi nga li jëluñu ko en charge dañu dañoo def loolu tubaab di wax. Euh, taxawuñu ko la daanaka non assistance à une personne en danger mooy ku nekk ci jafe-jafe waa kër docteur taxawuñu ko ba mu des seen loxo mu bind loolu ah attention yéen sax da ngeen a wëri journaliste bi yéen journaliste yi wax loo ko mu leeral yëf loolu moo tax loolu moo tax ma ni am na liggéey yoo xam boo koy def da ngay leerlu ba pare waaye réewu lëmb nga indi fi coow lu toll nii te wax yi nga wax yëpp benn bu ci nekk amul xale bu dugg aux urgences xale bu en chirurgie xale bu génn ñu yóbbu ko réanimation ah waaye wax dëgg yàlla waa kër taxaw nañ ci niñ ci war a taxawee maintenant nag yàlla jël na róom ñu ngi jaale famille bi di ko masaw waaye famille bi tamit mais dafa am lu bari lu ñu war a leeral parce que dañu ne xale bi dafa daanu ci étage démb dégg nañ yaay ji dafa daanu ci étage nga daanu ci étage dal ci bant imagine leen cette douleur ak nan la war a gaañoo ak kan moo ko gaañ xale bi nekkul woon di fo est ce que nekkul woon ay moroomam est ce que du nit a jël du xale jël initiative jël loolu gaañ ko ci est ce que ñoom fekkee nañu daanu bi c' est ça qui important moo tax ma ni nañu jóg def ay enquête def xool luñ mbóot seet ba xam laajte xam pour bu ëllëg waaye nag comme on ci Sénégal